set setal parce que dañu xam ne nit ki foo dëkk rek fofu nga wara défar légui suñu mag suñu lepp di Faatu ndjay jox ni une initiative bobu nañu samedi nañu génn premièrement pour commencer ci jàkka ji defar ko bam set indil ñu ay matériel indil ko ay indil ñu ay matériel ay bale ay pour yett ñu xey fajar jigen yëpp génn mobiliser wu and ak mom défar jàkka ji génn ci mbedd yi alentouru koñ bi yëpp ñu défar ko waaw te set dafa baax ci quartier def nañ ko tey gis nañ ci suñu bopp kontaan nañu te ni ñu ko commencé tey dañ koy saxal bëgg nañu chaque semaine ñu génn def suñu set setalu koñ fii di Malika Plage waaw jàkka ji dëgg la qualité bi ci la bokk mais jàkka ji am na ñu ko ñi ko doon njëkkee fii femme yi ko doon njëkk a def mais moom bu ñu wax bu ñu waxtaanee affaire set setal moom ci boppam Faat Ndiaye daf ñu ne nañ njëkkee ci jàkka ji waaw ñu dem fa nag dugg si jàkka ji gis moquette yi ni mel indi ay yu baax yoo xam ne euh, rax bale ko raxas def tout ba ci toilette yi waaw parce que jàkka tamit priorité la si koñ buñ fa paree nag la génn si mbedd bi bale mbedd bi quartier bi yëpp ba set te dañ koy bëgg a saxal nag bëgguñu ko yemale tey rek buñ fi yàlla bàyyee. ah bëgg nañ ko parce que bu ñu sañoon ñu utal ñu ay matériel ay gants ay masques. ay gel ay poli mbalit kees pour fu ñuy sotti mbalit bi mhm, am na am na solo. waa pour la moment daal jigéen yi ñoo gën a farlu jigéen ñi daal moom génn nañu ak doole ak xale yu ndaw yi waaw génn nañu ak doole surtout jigéen ñi nag ñoom vraiment génn nañu ay doole ak doole. di sant rek sant Fane Ndiaye mi nga xam ne moom moom moom moo ñu jiital ñu koy sant ah di ko wax daal ñun ñu ngi ci ginnaawam.

pare nañ ko pare nañ ko bu yàggul noonu euh, moom lañ nar a teg si yoon bi mais fi ñuy njëkkee mooy jàkk ji tey moom jàkk ji lañ ñu defar defal artère principal bi et di ñaan yàlla lundi incha allah dinañ delluwaat si jàkk ji pour euh, feddali li ñu commencé woon parce que moquette yi dafa laaj euh, toppatoo. mbir mi yemul si Malika Plage ça veut dire programme nga xamné un euh, projet bu ma am euh, projet bi dafa concerner Malika yëpp parce que munoo ne da nga dëkk Malika di di liggéey ak ni nek Malika plage fàtte ni nek yenen yeneen gox quartier légui n'a bu ñuy wax Malika plage dépendre si ñun parce que découpage bi ñun defuñu ko c'est vraiment administratif dégg nañu fi Malika montagne dégg nañu fi quartier Ndiago kon boog man bu ma Malika plage c'est parce que faut laa mes projets. bi c'est pour tout Malika projet boo xam euh, d'ailleurs on va sensibiliser tous les délégués du quartier de Malika boole leen ci programme bi pour ñu dire a seetal sunu gox yi seetal sunu gox bi nag man mangi don doon ñaan yàlla autorités yi fekk ci ñu pour que mu gën a neex mu gën a ci ñun de toutes les façons ñoom mënuñu nekk fépp ñun ñooy seen bët kon mbokk su fekkoon ñu ñëwee seen bët ñoo leen mun a wax ne fii baax na wala fi baaxul dinañu xalaat ñu ñun suñu département bi dañuy am problème bu mag mooy problème majeur mooy inondation bi léegi waxuñu waxu inondation mais dañ ne bu ñu defaloon sunu gox bala hivernage bi di jot dañuy am rek difficulté pour génne sunu kër yi donc ma doon euh, def appel au niveau communal au niveau départemental au niveau national pour ñu dégg sunu baat pour nous mun ñu pour que sunu programme bi nous mun ko yóbbu fu kawe kawe kawe parce que pour jàkk ji plutôt jàkk la euh, amul euh, euh, amul souffre mon fa nekk bu États day pour loolu yëpp tamit bëgg nous ñu jàppale ñu si ñu jàppale ñu si pelli yi râteau yi am nañu sax râteau boo xam chef de délégué de quartier bi jox nañu ko jox nañu euh, mais dañu manqué les balais manqué les serpillères manqué les gants euh, manque les masques euh, produits yi nga xam ne dañ ko war a pour mun a nettoyer juma jàkk ji yëpp amuñu ko donc ñu ngi ñaan autorités même bu autorité autorités ñi nga xam vraiment yàlla may na leen doole tuuti ñu gëstuñu ñu gëstuñu tuuti si mbir voilà donc ce jour bi euh, c'est vraiment c'était une réussite parce que réussite on a pu sensibiliser les femmes étaient là toujours présentes mais am lu bees lu xew ils sont dañuy jël quartier d'Aliné, sont ils ñoo plus a toppatoo les luy mbalit ñun mag euh, commencé bunu nu sen gox mu commencé ci lim ñom sen bop ñoo waratu sani butéel ci suuf waratuñu ñu sani yi ci suuf légui ñu ngi commencé di duggal loolu sen bop donc finalement cette setal du rek balé mais cette setal mu ngi bok ci éducation bi nga xamné mom la ñu wara duggal ci xalé depuis son base euh, depuis bi mu nekkee xalé pour bu maggé di bañ yenn yi ko waaye man fumay jéxalé rek moy di sant jigéen ñi

Euh, bugg a wax ni quartier bu gëna set ñu primer ko lool moy suñu objectif final ça veut dire que concurrence nañu bëgg indi ci mbir mi mais concurrence pour que suñu dëkk bi jëm kanam donc euh, pour que Malika set du nu am mbëbës à côté ñu né dañuy trier mbalit ba paré nak bu ñëwee suñu biir dëkk dëkk gis mbaliki mbalité bi di taxawalu fépp légui nak ñuy ñaan yalla rek pour ñu dal and ak xel ànd ñu euh, ñuy waxee àndandoo pour défaire son sunu gox sunu gox du Malika plage mais profitez-en pour que Malika mieux pour Malika euh, xaj si biir programme bi projet bi maa remercier donc toutes les femmes tous les enfants euh, de remercier chef de délégué du quartier bi Assane nous mi nga xam nous am quelques équipements lol mom duñu ko dindi may remercier sama vice-présidente Yassine Thior may remercier Fadialo mi nga xamné mo nek nekk trésorier général générale euh, di remercier secrétaire madame Silla euh, di remercier madame euh, Fall muy Kiné Mané di len remercier jigéen yi fi nek ñep franchement awuma seen fay mais defe ñom ñoom seen bopp xam nañu lu tax ñu jóg dal waaw di remercier ñep